من مستديم على الوسيلة سفيهنا الكريم محمد والآل والصحاب ما غفر الذنب لذي الإناب هذا وإن اليوم قد ندمت من كل ما جنيت مذ غفرت إذ ضاع جل عمري في غيري طاعة ذي الجلال مول الخير wasirtu lil hawa wal shaytaani wan nafsi wal xalqi asiran jaani fa qultu taiban bila tawaani mubtaxiyan xufraana dil xufraani yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana aqbal tawbana bijaaye kulli bijaaye summa sallim sarmada waxfir lima taqatu bil jinaani waxfir lima nataqatu bil lisaani bi jaayi xayri kulli xalqin ahmada halay salli summa sallim sarmada waxfir lima taqatu bil janaani waxfir lima nataqatu bil lisaani waxfir lima lamastu bil yadayni waxfir lima mashaytu bir rijlayni واغفر لما نورت بالعينين واغفر لما استمعت بالأذنين واغفر لما أكلت بالبطن وما بالفرج قد حسيت يا رب السماء واغفر لما قدمت بفضلك واغفر لما أخرت بمنك واغفر بجودك لما أسررت واغفر بلطفك لما أعلنت واغفر لما علمت يا ذا الكرم من الجناية وما لم أعلم واغفر لما علمت مني وحدك واغفر لما علمت مني وحدك في عمدنا أو خطأنا أو بعفك واغفر لما علمت مني وحدك في حمدنا أو في خطأ بعفك waatini asanatan fi dunya wa fi xadin wa yasiran li saxya wala tuwaxid habdaka daifa bi dofihi id lam tasal latifa waxfir lahu waxfir li walidayhi waxfir li kulli man numi ilayhi waxfir li cheikhi wa cheikhi cheikhhi wa cheikhi daka cheikh summa cheikhhi wa li jamihi almuslimina turra والمسلمات لهلم جرا وسليا ما سلا من قد كفى على شفيع الشفعاء المصطفى والآل ورساد للأوب ما نالت عيب قبول التوب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي عزمته بقولك ولا يعصمك من الناس وآله وصحبه صلاة وسلام وبركة tansuru biha alayya barakati dalika alxawli wa tuhyini wa tutawil humri bi fiik wa fihi sallallahu taala alayhi wa sallam amin ya rabbal alamin wajal haasi alqasidata allati axadtuha minhu xisnan min usunika allati man daxala fi waxidin minha amina min azabika wa makrika abada wa barik li fiha wa likulli man xadaraha aw xamalaha barakatan taqi kulla suin fi ddaaraini abada waxaani xafiisun xaahirun jalla maanihu جميع الأسى والخير لليوم تائه وقاني عفيز قاهر جل مانه جميع الأذى والخير لليوم تائه أجارني القهر من جملة الحدا وخانتهم أرماهم والمدافع لو جل كلي وهو ربي وحافظي به ينتفي عني البلاء والوقائح لو سرت حبدا والمخفى وسيلتي وأصحابه وفد الأعادي أضاره هو الله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين والله واسع يقيني الآ فضلا ويعطيني المنى به تنتفي دارا لغيري قواته xalimun xakimun qad amaani bi xikmatin wa yakfi janaabi sharra maa huwa waaqi'u salaatan wa tasliman min allahi abtaxi liman kaana bittaaati abdan yusaarihu muhammadin ilmunji dawaaman xadiimahu maa al aali wal asaabi nicmal mutaawihu kariimun bi arjuu min allahi xismatan وعافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع نجاتي وإن جاي وأوس استقامة وأهلها بالله والقلب قانه إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع لو سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى بيق ملحدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد salaatun min allahi alladi huwa jaamiu salaamun ala almaahi ma rusli wal malaa min alwaahidi alqahaari man huwa maanihu bismillahi arrahmani arrahim wa alaykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu faakum haasihi al-abyaata shifaa'an min kulli daa'in wa naasinan min makaa'idi jamiihi al-a'daa'i yaa rabbi bil mustafa المختار من مدر شفيه أمته في البدو والحدر يا رب بالمصطفى المختار من مدر شفيه أمته في البدو والحدر عليه سل بتسليم بلا هدد في الآل والساب واعصمنا من الضرر خذ أمة المصطفى هما يجر لهم سوى عبادات واسمهم من الشرر واضرب لغيرهم شيطان في أبد وتكفهم كل من يستو من البشر وتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر وجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الغرر wasal lidaaban bi taslimin alayhi bi man law antamaw wal tajud bi safwi wad durari wasal lidaaban bi taslimin alayhi bi man law antamaw wal tajud bi safwi wad durari subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yaa gën lu ñuy bëgg mata bëgg mata wut yow ku la falu di buur jóge nga yow faaw fi suuf doo dellu yow mukk fi suuf safe nga doo sappee ka soof ñam nga wudul na bëgg a xuur sant nga yow te santulu sopp nga it te soppulu topp nga it te toppulu yaaram bi jëf nga jëfi góor yaa mën a sës rek ci buur yaa mën a saytu gaay buur bégal nga buur ak gaay buur ñëpp ngi bëgg ci yow naka ma xam ni duma góor téer ba xam ni yaa di góor laa ñëw te naa jaajëfe góor sawa desa tax nit ñépp suur man duma lëf duma dara te kenn du lëf kenn du dara yow yaa di lëf yaa di dara làq nunun bu ñu nu dóor tey ëllëg bu ñu nu dóor sunu kokit bu ñu ko dóor te kokamit bu ñu ko dóor noo ngi fi yow di sa fi teegalag bu ñu nu daan sunu kokit bu ñu ko daan te ko kamit bu ñu ko daan bo nu jusow la kakku guur yonen ba def na la jiba nanga nu def faawu jiba te bu nu wàcc bu nu baa def nu ko jub ku bari muur nanga nu def jiba yi ngërëm yuy feesa feesa kii ngërëm tey feesa feesa kii dërëm faaw te def nu waaye buur pexem yàlla moo gën pexem nit ndaxam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 lu saytaane ak nit di tee am dafay lu tukkee fa nit nag te say bañ na fa lu tukkee fa yonen ba ak yàlla jëm ci yow loola day ñëw ku bañ randu fa na xel di dal yow sa xol sedd nag sa wërsëg lu nit fab fa ër ko fa lu nit rëy cër di yóbbaale kët cërëb nit cërëb nit ku bëggit ba fa dagaanal xërëg dëddu ak it te yow te wut nag keroog doy lu far tëdd fa kerug doylu moo lay fegal naaju lor seral sab xol sab yaram yendu fa kerug doylu moo lay fegal naaju lor seral sab xol saw yaram yendu fa te bul jàq bul rëkk ngirub fa mbir yay ba woo yàqkat yëggu fa ndegam gaaya bay daa laxal seeta añ ku xam gaaya dul bay fu ñuy lekke kon ndegam gaaya bay daa laxal seeta añ ku xam gaa ya dul bay fu ñuy lekke kon bu fekkee ni yow bamba may yi nga yor ña gën rek a ciy jot na ngay def ñi bon bu fekkee ña baaxay amas lëf ci yow ña baaxul lu ñuy am ci yow mii fi gën te yaa yor cërub gaa yu baax yu bon faral jox ma jox ñépp jox ñii fi man du lëf tax nu jóg ñëw fi yow kat lu dul sa yërmaande yërmaande leen seenu nun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 kay ragal jógal rammu mbaagam yi dem nit ñi bon bu ab sàmm ne cell jur gépp jeexee lu muy sàmm kon ba nuy dëddu kër baaya ki ndey di ñëw wutum mucca daam tax mbaalu nuy wut si kon ba nuy dëddu kër baaya ki ndey di ñëw wutum mucca tax mbaalu nuy wut kon